Euh, un an après euh, génnuk àddina euh, xale boobule tuddoon bébé Dia ci crèche bii di sigoñ ay parents wam ñu ngi doog wax li ñu wax nag daw na yaram seen jaaxle ak seen tiis ba tey da nga koy liir ci seen kanam di entretien exclusif boo xamante ni un an après seq nañu ko ak Mame Birame Diouf seen tiis wër na réew mi seen naqar amul ab ata ngi nii mi ñuy jooy wéet ata ngi nii ñuy jooy seen doom bébé Dia ata ngi nii couple Dia di def di wax di dox di daw ngir xam li rey seen doom ci crèche la cigogne bleue bi ñu ko yóbbu woon pour la première fois papa ak yaayu bébé Dia nangu toog ensemble ci télé fësal li nekk seen xol sotti li diisal seen dënn. bon bébé Dia c'était un enfant de euh, neuf mois ma nekkoon sama deuxième doom donc euh, dama ko yóbbu woon crèche ba Cigogne Bleue te le lundi 30 novembre bon bi ma koy yóbbu dara jotu ko il était bien portant ñoo foo kaf et donc ba ay booru 14 heures moins sama jëkkër woo ma ne ma ah moom ndax dafa feebaroon cheikh bi ma ne ko non mu ne ma ah directrice bi daf ma woo ne ma. Euh, naa ko fekk si hôpital parce que xale bi dafa xaw a feebar ma ne ko ah, feebarul de mi ma ko doon yóbbu en tout cas. directrice su bi woo ma téléphone ni ma monsieur Dia foo nekk man ko maa ngi sama bërëbu liggéeyukaay mu ni ma euh, est-ce que mën nga ñu fekk hôpital ma ne ko ban ban hôpital mu ma sami municipal ma ne ko d'accord ma ne ko lan moo xew mu ni ma non dara xewul ma ne ko est-ce que euh, cheikh bi il va bien lan la est-ce que dafa am lu xew quoi mu ni ma. non non dafa xaw a feebar il est un peu malade ñëwal bu fekkee nii mën nga ñëw ma jël sama taxi ma dem bi ma demee ci hôpital bi médecin bi ak yiir ma ma dugg ci bureau mu ni ma waa crèche bi ñëw nañ fi bi ñu fiy ñëw 12h30 lañ fi ñëw man ñu ngi ma woo 13 h toog nañu une heure de temps balaa ñu may woo ñu ni ma ñëw na fi 12h30 indi fi benn xale gone bi ñu koy indi fekk na mu décédé. noonu la ma ko ci annoncé. bi ma demee hôpital vigile bi moo ma accueillir donc bi muy expliqué ci la ni euh, man maa def euh, premier soin yi quoi affaire di ko expliqué ñi ñi ñi ma àndaloon quoi ñi ma nekkaloon naa leen ko moom il est secouriste de formation. donc euh, moom c'est ce qu'il disait le gars man je l'ai jamais connu en tant que secouriste man gardien laa ko mos sax xamee foofu mu suñu ma ko présenter en tant que secouriste quoi que ce soit mais bon je suppose que woo nañ ko. ci li ma jàpp ko parce que c'est sûr que cité nañ ko donc woo nañ ko peut-être bi muy ñëw di def soins yi fekk na xale bi décédé ba pare peut-être takku si directement loolu laa jàpp xëy na parce que je pense que bu si takkoon directement quand même duñ duñ ko bàyyi noonu. bi muy yegg si fekk na mu décédé fekk na mu dee man ñu woo ma 13h30 man mi nga xam ne maay bàyyi gone gi gone gi dee na ñu def ko li ñuy def jagat jagatee ko yóbbu ko hôpital yóbbu ko kii médecin bi kii ñu toogaat une de temps après. te man maa ngi dëkk à côté sorewuma une heure de temps après ñu woo ma ni ma gone gi dee gone goo xam ne dara jotu ko dara jotu ko dafay yomb trop ñu jël xale gone responsabilité boobu yàlla jox ñu xale gone gu ndaw jox ñu ko ngir ñu toppatoo ko ngir ñu euh, teg ko ci yoon ba mu màgg ni mu waree ñu yóbbu ko ñu xëy ni ñu dee na noonu ñu ñu ñuy bàyyi duñ ko def dañoo bëgg a xam lan moo ko rey ñu porté plainte ci porté plainte bi lañu commencé intimider bi ñu defee autopsie certificat de genre de mort bi génn ba léegi du rapport d'autopsie on ñu jël certificat de genre de mort bi yóbbu ko euh, polisu jëppal euh, mu doon c'est une mort par asphyxie secondaire à une fausse alimentaire loolu mooy mais euh, ça ne veut pas dire que ni c'est pas le rapport en fait qui décrit carrément xale bi lan moo ko rey ndax feebaroon na ndax feebarul woon ndax kër bi muy dox ndax kër bi doxul loolu après la ñëw bi mu demee ci juge bi on a vu que affaire bi di traîner di traîner di traîner organiser nañ fi marche wax nañ ci Facebook wax nañu Instagram wax nañu organiser ñu on a pris beaucoup d'initiatives pour alerter pour dire que euh, un enfant est mort dans une crèche on ne pas lan moo ko rey crèche baa ngi continuer du liggéey di jël ay xale bu fekkoon ni xale bi poison la lekk ci ëllëg sa cinquante xale mën nañ fa dee te duñu xam lan moo xew ñuy alerter di alerter ñu ñuy tànqam la pendant huit mois ñu commencé ni duñu duñu bàyyi xel di ñu woo di déglu ñuy dem di ñëw di ñu woo di déglu ñu dem di ñëw ba à un moment ñu def pression pression pression juge bi doog a ubbi pour xool. dossier bi bi mu ko ubbee à l'instant il a compris que l'enquête a été bâclée mu jël dossier bi daan ni dama koy jox dig la ñu njëkk a wax da kay jox dig ñu bu ñu def enquête bi ñuy xaar ñu xaaraat un mois dégguñu dara ñu te ñu defaat pression mu avocat bi dem fa wax ak moom mu jëlaat dossier bi jox ko sûreté urbaine mais sûreté urbaine moom en moins de un mois en deux semaines trois semaines bouclé na enquête am woo nañu woo na ñële police scientifique bi dem na def nañu seen i li ñuy def ñu bouclé enquête bi ci li ñu xam mooy que amuñu woon autorisation mooy que biñ koy jox du lekk li ñu ko doon jox mu lekk dëppoowul ak atam gis nañ ni euh, ni ñu ko doon joxee mu lekk baaxul à l'instant procureur wax nañu yóbbu leen ñu ñu jàpp leen déglu na leen jàpp nañ leen yóbbu lañ leen euh, prison un après liberté provisoire kooku moom crèche ba te ab gone dee fa amul autorisation gone dee fa mu def un mois ci kaso bi ñu génne ko naan ñu prose ak dugg na fii nañu xaar dafa am ñu ko ngemb noonu la demee te bu continuer dañu dinañu wax nit dinañu wax ku ko ngemb ñu ma imaginer au vingt unième siècle fi ñu toll ay crèche di dox à Dakar sans pour autant mu am réglementation ñi nga xam ni ñoom ñoo yor justice bi encore une fois xale du caaxaan bakkanu xale kenn du ko foowee bakkanu nit sax laay wax. que justice soit fait def liggéeyam ndax ñun duñu bàyyi duñu duñu duñu duñu bàyyi duñu duñu reculer dinañ topp mbir mi ba mu sës waaw dinañ ko topp ba mu jeex bu soobee yàlla. parce que yéex na trop trop trop et c'est très difficile pour nous c'est difficile à vivre parce que munoo un an. Euh, sa doom décédé euh, amul dara lu leer mbir yi yéex daal amul y a rien de concret jàpp nañ leen bàyyi nañ leen après dañuy toogaat combien de temps pour ñu woowaat ñu def jugement bi nañu dimbali ñu def jugement bi justice def liggéeyam comme lu mu waree ñu xam fu ñu féete mbir leer ñu noppal ñu aussi. il était il était jovial il était plein de vie. wér pëling dara jotu ko moo tax su ma déggee ñu naan ma ay directrice bi da doon wax naan dafa feebaroon ak yooyu j'étais choquée parce que musul dara dalu ko woon musul am dara lu dul yaram bu tàng te c'était dû à un vaccin musuma koy jël yóbbu ko pédiatre ne dafa feebar non donc pédiatre am bi mu ñëwee ci dëj bi dafa jooy ba dañ ko génnee ci dëj bi kooku kon dara dara mus ko dal son carnet de santé est la affaire yooyu. même le rapport même rapport d'autopsie bi génne na ni que amul woon benn problème il était bien portant. ba jour bi ma koy yóbbu ci crèche bi jour décès bi mu ngi toog sama kaw nii ci oto bi muy tëb di dal di foo di def lépp sincèrement il était voilà moom daal c'était un ange daal. voilà entretien exclusif réalisé par euh, Mame Biram Diouf ak équipe yu télévision Futur Média merci euh, ci waxtaan boobu la nga xam ne séqu nga ko ak way euh, wayjur yu xale bi faatu woon ci crèche boobule di Sigogne duñu ci commentaire lu bëri ginnaaw problème baa ngi ci loxo justice ñu ngi xaarandi fan la wànnent di mujjee ki gëtëm en tout cas on encourage parents yi muy papa ji ak yaay ji c'est douloureux mais bon ñun nag dañu jàngal muñ ay jullit lañu Euh, ci majorité bi bu ay mbir dalee ci suñu kaw euh, dañu koy sante yàlla suñu borom moo leen ko joxoon euh, jëlaat na ko anam yi nag moo metti nii faatu bi amee mais ñu ngi xaar justice def liggéeyam et on pense à ce bout de chou les enfants c'est comme des oiseaux moo tax duñu bëgg ñuy feebar du ñu bëgg dara di leen dal boo ci amee nag mu faatoo nii da ngay am naqar boo dootul fàtte malheureusement voilà c'est des faits divers yoo xamante ni j'ai pas envie d'en parler mais bon malheureusement euh, saa yu mbir amee il faut que ñu nit ñu coppati ci wax ci tuuti laata euh, journaliste yeeg euh, rédaction bi di